mbokk yi jërë ngeen jëf ñu ngi leen di nuyu bu baax euh, di leen jaajëfal euh, ci seen ànd ak 24actu euh, point com ci fidélité bi ngeen am di ànd ak ñun ci sunu ay programme lu tolloog weer ñu àndoon ak yéen ci programme boo xam ne rek dafa jëmoon ci wàllu koor geek yu ni mel ñu ngi leen di baalu àq te di leen déwénati ci programme bi am solo bi nga xam ne rek dana ko jagleel bésu korité bi fas yéene ci ànd ak yéen waxtaan lu soxal li nga xam ne rek moom moo di korité geek koor gaak la ci aju ci ànd ak euh, waa 24 actu yi xam ngeen euh, kanam yi nga xam ne rek euh, moom laa toogal ànd ak ñoom ci gile jotaay ma njëkk ko nuyu soxna Mame Fatou Kébé maa ngi lay nuyu ma bàyyi la nga nuyu ak ñi lay topp ci 24 actu point com déwénati. ok jërëjëf El Hadj Ousseynou Ndiaye comme ni nga ko waxee salaamaaleykum mbokki ñuy topp ci 24actu.com kon nag dellusiwaat nañ su seen spécial korité comme ñu leen di déwénati comme ni ñu ko baaxoo di ko defee koor gi nag ñoo ngi ci woon xam ne ne koor metti na waaye olof Ndiaye dane eh, torop El Hadj ci Ousseynou yow mi nga xam seen tamit yaay bi jataay bi euh, comme nii rek lay demee ci kanam voilà mu nuyoo borom actu du jour euh, Maguette euh, déwénati maa ngi lay bu baax Maguette soxna Maguette Bousso fekkeel déwén Ousseynou maa ngi lay fay di nuyu ñi nga xamante ni ñoom laa bokkal plateau bi soxna Fatou Sylla ak sama xarit bi Mame Fatou maa ngi

waaye tey di ma jox sama déwénal. non déwénal bi day ñëw incha allah rabbi euh, Maguette vraiment ñu ngi koy sant bu baax euh, di ko gërëm euh, di ngeen di ànd ak moom ci actu du jour borom seen entretien yu am solo yi nga xam ne rek mi ngi koy amal ci 24actu.com ah dafa mel ne xulóowaale yi tey ñaar woon ñett la woon mais tey ñaar la quoi am naa fi keneen koo xam ne soxna Astou la vraiment xàmmee ngeen ko ci écran bi nga xam ne ci seen ni ngeen koy seetaanee ci naafile yu am solo yi nga xam ne moom lay amal ci 24actu kenn jaaxle tuuti ci naafile yi man nag la ma ca gën a neex mooy ah waxtu dogee soxna Astou maa ngi lay nuyu euh, ma bàyyi nga lay topp ci 24actu point com yow euh, fay euh, El Hadj Ousseynou waaye tamit di fay képp ki nga xam ne mi ngi suivre seen site internet bi di 24 bu baax waaye tamit di la wax ne déwénat yi koor na kon nag ñu di ko teewa ay yu bëree bëree bëri waaye tamit di ziar bu baax ñi nga xam ne ñoom lañ bokkal plateau bi soxna Maguette moom Fatou Kébé bi moom moom xam naa ne instant bi moom kenn gënu koo kontaan parce que moom dafa ragaloon koor mais nag leen di ziar bu baax bu di leen jaajëfal di leen ñaanal tamit koor gi yàlla nañ koy fekkee ay yu bëree bëri. amiin hmm. ah, corona mi kenn moom daa corona bii moom daa corona bi nañu galgal Mm-hmm. kott ñu kott ñu galgal ñi incha allahu rabbi jërëjëf euh, soxna asusi la ci nuyoo bu am solo bi Maguette yow beñe nga def beñe tas yaakaar comme ni ko Cheikh Gueye di defee wala laax wala beñe beñe camp këmëx <laughs> yow itam <laughs> mm-hmm. mm. bu am lan bu am lan am laax bi lu ma am am na raisin ak xeet yooyu <laughs> am na yëpp de ah am na yëpp. ah gisuma ma jàpp mooy bind mbaa yi voilà jërëjëf Maguette dèjà yow la ñuy tàmbalee ci waxtaan bi sax euh, alhamdulilah rabil alamin la ñuy wax ginnaaw bi nu wooree ci jàmm ak salaam euh, génn ci nekk ci euh, bésu korité donc koor gi nag ren mu mel ni nag wute na ak koor yi nga xam ne moom la ñu doon amal gis nañu mbas mi ni mu ci duggee donc lan mooy sa première réflexion ci mbir mi ak ban jàngat la jullit bi war a def ci koor gi ak ren ni mu demee nii. Mm-hmm. Euh, Ousseynou rafetlu naa bu baax a baax laaj boobu nga laaj ndax comme sànq ni ma ko waxee nee naa corona dafa ñëw imposé ñu ay luwaam mhm. ndaxte boo xoolee bis bi nga xamante ni duggoon na ci réew mi ba léegi mhm. première déclaration bi nga xamante ni Sëriñ Bassirou Abdou Khadre def na ko la mundu mhm. rek moo ci nee na bu duggee ci réew ci yàlla namm mooy jullit bi doon def lu ñaaw mu jéem a tuub ak jéem a xam ne yàlla rek moo fi nekk tey boo gisee jamono ji ni mu demee ni nga xam ne yàlla rek moo fi nekk ndaxte bu njëkk da daan wax nit ki toogal sa kër mu ne noonu mun maa toog mënumaa reer di feneen fu damay dem resto tàggaloog jabaram génn ne day dem reeri resto yu ni mel couvre-feu ñëw na force da ngay ak sa njaboot am ñoo xam am na ñoo xam dañ naan mënumaa dégg ak sama waa kër moo tax du ma ak ñoom mhm. tey da ngay toog par force mhm. te mhm. fii yaa ngi ci biti kon mbir yi bu jàllee war na am jàngat bu bari boo xam ne sénégal yi war nañ ko cee def ci loo xam ne war nañ ko ci changer ak yeneen a yeneen voilà soxna su comme ni ma ko waxee rek dégg nga ko euh, corona bi moom ñëw na Euh, imposé ñu ay loi euh, mu nekk euh, affaire boo xamante ne mën nañ ne hélas ñun ñëpp ñoo ko dundandoo mais nag li màggat wax dafa nekk loo xam ne c'est très important parce que dafa dafay damay seetaan benn image am koo xamante ne dafay wax ne nee na comme par exemple yàlla daf ne bu leen jege njaaloo bu leen laal njaaloo góor bu la lewul bul ko jege bul ko laal jigéen bu la lewul bul ko jege bul ko laal mais corona bi mu ñëwee imposé ñu kenn ku ci nekk da jëfe li la corona euh, euh, bu euh, la ñu gën a na nekk loo xamante war na mën a yee ñu bëree bëri surtout nag ñi nga xamante dañ naan def loo xamante lu safaan bi la ñu gën war a mën a góorgóorluwaat te xam ne yàlla suñu borom ne moom moo fi nekk ndax jàpp naa ne même bu passé li nga xamante ne kër docteur mi ñu koy digal pour ñu koy def pour moytu feebar bi mais nag dara desul lu dul jaamu suñu borom gën koo tàllal suñuy loxo gën koo ñaan ngir mu jële fi mbas mi nga xam ne moo lëmbe àdduna bi loolu nga wax sax ndax takku masque bi boo ko mësee gi xam nga boo takkee masque sa yoon dootu nekkati si dara doo am koo waxal boobaa jëw day arrêté mhm, donc kon am na yeneen yu bëri yoo xam ne daf ko ciy jàngale waaye ci jàngale ak li nga xamante moo di nuyoo xam góor a jigéen waruñu joxante loxo corona ñëw na aaya nuyoo ñu ngi koy def ñëw na daal imposé ñu ay loi maanu toog sa kër voilà. loo xam ne daal soppi na ko ci donc soppi na ko fi euh, vraiment buñ ci génneeg jàmm. sax suñu borom moo tere. ñu di ko def tey jii gis nga bi corona santaane loolu daal nay am. voilà corona bi bu santaane loolu daal nay am mais terewul am na impact boo xam ne euh, def na ko soxna maam Fatou Kébé euh, ci daanaka réew mi yëpp daanaka foo laal ay jafe-jafe yi bari na dem nga ci commerçant yi gis nga tamit jafe-jafe yi nga xam ne ñoom la ñuy jànkonteel mel na ni mbir yi daal daj na kàpp euh, jamono. Oh, waaw Ousseynou comme ni nga ko waxee corona bi moom daat nay daj kàpp ci jamono ndax gis nañ fi yi nga xam si ne laal na ko ci ay yu bëri euh, ndax bu xoolee ci commerçant yi comme ça ni nga xam si ne doon nañ ko jaaye daat na ciy feeñ euh, ndax gis nañ tamit fi mu toll nii njaayum korite xaalis amul na ko nit ñi war a amee ndax tey ji liggéey boo xam si ne dañ la ko dañ la defal kër nga am heure boo xam si ne da nga koy xëyee ko wàcc loolee fi mu toll a a mm-hmm. comme tey jii niñ doon euh, amee njaay moom seen bopp am sa activité boo xam se ne da euh, euh, bi dinañ xottil nag ci laal ba nga xam se ne amaana nañ ko bëggee woon du ko def mu nekk xam nekk loo xam eh, moom Fatou si Korité bi a yàgg mais nekk loo xamante moom la ñuy suturloo mu nekk loo xamante lu métti métti la parce gor gu nekk gor nga rek mënoo ñaan mënoo sàcc mënoo àbb parce koo leb benn yoon bu ñaaree bu ñettee mu jéppi la wala ka ngay leb sax comme si que moom tanewu la wala lam lay jox moom moo la ko gën a soxla wa mu nekk loo xam ne affaire bu métti la ñu toll korité boo xamante ne kenn ku ci nekk borom kër bu nekk boo sañoon say sa njaboot békk sa soxna békk say doom ñëpp la te ñun ñëpp euh, a dox ni ñu daan fanaan mais léegi ak couvre feu bi nii mënatuñoo fanaan corona obligé mënatuñoo am xaalis laal na leen ak ñi xam te dañuy jaay yëre xale yi mhm, xale yi xam nga boo nee genre korité yi sa xel ci xale yi lay dem mhm, mhm. mooy seen événement dañ mhm. ay dàll ak yu ni mel daal na bu baax voilà baax allah euh, donc loolu la ñu doon wax rek ubbee ko jotaay bi euh, ci euh, corona bi xam ngeen ne lu defu waxu lu ay di njàmbat laataa ñuy dugg nag ci koor gee korité gi fi mu toll nii toll nañ ci asu nga xal yoon wi rek koor gi de mel na ni sunu borom am na loo xam ne digg na ko ci doomu aadama yi nekkul ne dañuy woor pour xiif ak mar rek laataa ñuy ñëw ci soxna màgget dañuy woor pour xiif ak mar loolu jàpp naa ne kenn ku ci nekk xale bu ndaw bi sax war na mën a xam loolu mais nag dañuy toll moment boo xamante nit ñi euh, dafay nañ ne jiitu woon waaye nag defuma ko lenn lu du gën ragal yàlla kon nag maanaam ragal yàlla googu noonu foofu noonu la maanaa bi nekk te dafa mel comme si que nit ñi dañuy wor mais boo xoolee sax sama genre a yàlla suñu borom mi nga xamante moom moo la sàkk bind ñu ñun ñëpp daal di ne wax kat ne fukki nga xamante ne moo jiitu ci koor gi yërmande la nga xam ne yow dangaa war a obligé bu fas yi xam ne moo si topp di nekk ak njéggal nga fas yéene cee ne ko ñaan moom mooy sawara ndax kenn ku ci nekk bëggoo caa dem kon nag war nañ cee gën a mën a góorgóorlu ndax weer la boo xamante ne weeru promotion la ñu koy waxee saa su nekk xam nga ne élage bi bu fekkante ne dafa war dem si boutique bee war a jënd crédit cent franc mm-hmm. cent franc yooyu kese fi lay yem ñu ne ko tey kat bonus mm-hmm. dafa am xam nga ne day xaar suba jot mu mm-hmm. jënd pour mu am bonus comme comme misaal bi noonu rek la demee kon nag weeru koy weer la boo xamante ne boo si jaamoo loo ci def suñu borom rek suñu borom daf la koy nangul en même temps daf la koy fulal mu nekk lu vraiment dañuy gis ne dañuy sol seen ay jiin euh, def ba mu baax mais koor gi dañuy gis que ni ñoom bu jotee rek dafa am beneen façon bu nuy doxee est-ce que loolu tamit jërul ñu continuer ko en tant que koo xam ne vraiment daal waaw Ousseynou laaj bi am na solo mais dafa fekk ne le fait que moom mu nekk benn mois rek ci at mi nga war a xam ne lu exceptionnel la te yàlla dafa wax ne bu ngeen dafa dafa bëgg pour ñu rattrapé wu ci suñu jëf yu ñaaw yi nga xamante ni ñu ngi ko doon def mais teewul boo rattrapé wu ba pare nag ku la nag nga continuer waat encore di defaat lu bon koor gi tamit war na am lu ñu bàyyil mais donc ñu fekk ci benn affaire rek après ñëwaat fekkaat ñu fa tamit d'habitude bu koor di waaj a ñëw gars yi dañ dañuy tëj saison. tëj saison mooy lan Maguette man xaw ma ko de. da nga koy dégg ñi nga xamante ne dañoo. am tëj saison mooy lan na leer rek. fii moom léppay leer ñi am seen cappan yeeg yu ni mel. waaw seen ñu comme classement Fatou seen waay bi ñu waree gi di waaj a dañ naan dañ tëj saison beeg. yu ni classe daaw de. waaw yàlla man koor gi dafa am saison bu ñu tëj bu ñu tëj yow yow astu. port vestimentaire yi ni ñi dañ koy soppi di sol mël fa mhm. yor socc mhm. lislaam yi muy bëgg a dee mhm. julli àjjuma du la raw dara du la raw nga nekk si lu baax rek mais mais mais kon dafa mel ni passé nga bëgg koo baax dafa mel ni diine ji ñun dañ ko sangoo mais naanuñu ko xamal la diine ji dañ ko def benn weer kese te alors que du loolu. loolu mooy loolu mooy mooy mooy li am. mais yéen xale yu jigéen ñi yéen a ci gën a fës yéen góor ñi dañuy dañuy kii mais yéen jigéen ñi moom côté boobu yéen lañ ko gën a séentoo vraiment yéen ay sol seen jiin duy ko ba mu fees bu jàllee ngeen muuru def seen ibaadu nangam. nangam waaw loolu dëgg yàlla rafetlu ma ko moom. ndaxte mhm. côté jigéen ñi nga koy gën gis nag ngeen baal ma. Mhm. loo xamante ne nii moom lu rafet la ndaxte mhm. nit ki baax moom da nga war a baax rek continuer. te li nga xamante ni moom la yàlla digle dañ koo war di def waaye bu weeru koor jotee nga soppeeku bu koor gi passé nga nekk di man lañ man waaw lu bëri weeru koor bu jotee day pause li ci mel ni grand théâtre yeeg mm-hmm. yëpp loo xamante ni am na weeru koor day pause mm-hmm. def def def def ñaaw def kat yu ñaaw téef mm-hmm. yëpp mel ne comme si que benn weer bi kese lañ war a baax moom lañ war a def lu baax loolu tamit xam nga lu lu mat a seetaat la Mame Fatou est-ce sax ñun koor gi buñ ci euh, doxee doxin woowu liñ ci amoon a kës néew ci aw yi buñ ci génnee mbaa du lakkaat ba jeex ah moom kay élection yi dafay naqaree wax ndax euh, dafa nekk si ne dañ ne suñ borom moo ko mën a atte moo tax tamit waaye tamit dañ naan la boo xasee ba jëf lu baax tey ji pour nga rawale mooy da ngay fexe moytu euh, lu bon nga cay dellu ab safaan te ndax lislaam dafa bañ koo yamale rek ci weeru koor wi euh, waaye nag nit ñi dafa mel ne seenu jaamu yàlla ci biir wóoru weeru koor ci lañ ko gën a daal ci lañ ko gën a yitteel ndax ci la ñuy changé colin yi bu fekkee ne lu ci mel ne suñ mbokki jigéen ñi ci la ñuy changé li nga xam se ne moo di coli wuti mëlfa yi euh, bu fekkee ne tamit ñi nga xam se ne tamit ñoo nga naan euh, damay damay naan tay la diw di tëj saison mag nangam noonu nga koy daal di muy loo xam se ne saison man daal man saison bi ñu fi tëj man moo ma ci jaaxal euh, mu nekk loo xam se ne daal <laughs> man yëpp na waa kalaasam gi moom it ko mooy ñëw ci biir man jaaxal na moom moo am problème <laughs> classe aussi ñu ngi daal tëj saison lañ fi nekkee. moom màgget am na problème xam naa li gars yi naan buñ naanee ndox <laughs> gars dinañ la jël <laughs> buñ naanee ndox ak jàmm. asu euh, ngir da xuus ci waxtaan bi gis nañu aussi tamit euh, nit ñi dañuy seetaan télévision yu baree baree bari euh, surtout ci weeru koor bi parce que nit ki day am jot guddi gi bu dogee ba pare mën a am programme boo xam ne dafay jëm ci wàllu diine boo mën a euh, suuxat wàllu diineem mais malheureusement gis nañu yenn télé yi nga xam ne ñoo nekkee fii donc ni ñu koy defee daal jur na coow ci euh, réew mi yëpp ban xalaat nga amee ci loolu waaw jërëjëf El Hadj Ousseynou ci question bu am solo boobu xalaat bi ma ci amee mu nekk loo xamante ni comme que El Hadj ñun dañoo nekk ay jullit ñun ñëpp dañoo bokk suñu réewum Sénégal mi te kenn mënu koo xar xar ñaar réewum Sénégal nekk réew boo xamante ñu baax rek ñoo fi tëdd Serigne Touba Xaadimu Rasul ay maam Alaaji Maalik ak ñeneen la kon nag kenn ku ci nekk suñu war nañoo gën a mën a laabirante war nañoo mën a gën a raxas xol war nañoo gën a mën a yaatalante te xam ne kenn ku ci nekk rek waaye tamit euh, ñu toll moment boo xamante il faut que euh, El ñuy nangu tamit

li nga yéene sa bopp nga yéene ko sa morom waaye tamit bul bul jéem a def lenn loo xamante ne ku ko dégg daf lay euh, xeep wala lenn loo xamante ne boo ko defee ay affaires yoo xamante ni nit ñu féewaloo mën na ci am ak genre yu mel kon daal yu mu loo xam ne ñu bëri war nañ ko mën a moytandiku Maguette programme euh, yenn ci télé yi ak euh, koor gi ak ni ñu koy defee léeg-léeg ñu invité benn alaaji Ousseynou mu wax ci diine ji léeg-léeg ñu invité ki mu waxtaan ci maam maam Fatou Kébé donc xëy na peut-être xamuñu ba xam lan lañ ci jublu mais gis nañ ni am na ay divergence yu bari yoo xam ne ma ngi koy indi Issa Ousseynou xol mooy mooy lépp xol bu rafetee dina mën a dékku baaxu baaxu waaye ku nekk ndaxte kenn ku si nekk comme ni ko kii waxee sànq Sidi Hadji Malick ak Serigne Touba ak Maam Limaamu Laay Baye Niass ñoom ñëpp kenn ku si nekk yàlla am na lu mu la may mais da ko koy nangul te loolu xol bu rafet moo koy def télé yi ñoom seen marketing la ñuy def mais ñun ñi nga xamante ni ñun ñooy taalibe yi ñun ñoo ñun ñoo war a bañ a bañ ku ñu ku ñu jaxase ku ñu fénqale ndax boo xoolee ñoom mag ñi defuñu ko léegi lan moo tax ñun ñu di ko def mm-hmm. ndax boo xëyee da ngay gis tey ji boo invité benn benn Gana Messere wala kii Abdoulaye Diop Bichri mu waxtaan ci Sëñ Touba nga xëy invité waat keneen wax ci leneen bu ko defee concurrence bi day am ci réseaux sociaux yi mm-hmm. yow à la fin da mujj sax da ngay rus mm-hmm. billaahi affaire bi dafa maa metti day mujj dañ daf mel ne affaire concurrent ku nekk naan sama mbër mooy lii mel na bàkkoo mm-hmm. loolu amul sens ñoom mag ñi doxewuñu woon noonu xuloo yu xuloo yu métti ay da gis ñoo xam te dañuy mujjee sax far jéppi benn tarixa ndax benn saaga boo xamante ne benn taali def na ko foofu ci ci ci internet bi mhm. sax balaa ngaa continuer mu nekk loo xamante maanaam nit ñi côté bi ñu war a gën a bàyyi xel mooy bu fekkee ne tey jii par exemple dañoo invité ku mel ne suñu gaana mesare mu ñëw di waxtaan ki nga xamante mooy Serigne Touba Khadimou Rassoul mhm. moom daf xamuñu ko nit ñi di ko ku puukare woo wala nit ñi di ko ndamoo ak genre mel noonu demeewul noonu ñun ñoo war a yeew ñun taalibe ñu ñoo war a yeew bala bañ ñu ñuy xaajale dëggal sax euh, comme ça gis ngeen bi ñu ko invité euh, lim daal di wax kenn ku nekk xel da ko daal nangu ndax nee na Serigne Touba kenn mënu ko wutal promotion ndax dafa fekk loo xam si ne euh, suñ borom jafal na ko pare kon nag tey ji waaw te loolee tamit maanaam ku soxaru boo xoolee xam ne sëñ Tuubaa moom euh, kenn mënu ko wutal ndam ndax ndam la da koo defal boppam wut ko ba am ko ba pare ah. lu ci waay ko mm-hmm. euh, mi dama gis na ni euh, donc est-ce que tey am na ay télévision yoo xam ne mbiru diine la ñuy def am na xam ay télévision yoo ne déjà xam nañu leen ci Sénégal mais dañu seetlu ni yeneen télé yi nga xam ne xëy na leneen la ñuy def foofee dañuy gis ñi nga xam ne ñoom ñooy diine yi donc foofu la ñuy gën a seetaan loolu lan moo koy expliquer xamal foofu Ousseynou mm-hmm. bu dee bu murid yi mhm. ñoom am nañ euh, Mouridia mhm. am nañ Lamp Fall am nañ Touba TV mhm. bu dee Tidiane am nañ Mourchid Mourchid TV foofu bu ñu fa toogee dafa bàkk Sidi Hadji Malick si kenn du leen seetaan te bu fekkee nañ ne kat dañ ko publicité ñu ne day ñëw TFM wala Sen TV ñëpp koy def na seen statut waaw hmm. ah, pourquoi pas bu dee dem Mourchid ñu def la même hmm, te foofu noonu bu fa toogee wax sëriñam ba déwén kenn hmm. ko tudd ndaxte foofu moom moo ko moom Mourchid TV si ñoom ñoo ko moom ñoom Tidiane bu dee bu dee Mouride la wala nga ne Lamp Fall Mouride ñoo ko moom bu fa doon baax Sëriñ Tuubaa ba déwén kenn du la wuyu ndax dañ naan ñi mais lan moo tax ñu jox ñu jox euh, ampleur yeneen télé yi. Mhm. que ñoom télé yi nga xam ñoo xam moom voilà mais est-ce que est-ce que ah, mu woo ku nga xam ne télé diine la comme moom yëfu diine lay def mais day woo télévision boo xam ne peut-être moom ci leneen lay yëngu peut-être la mu bëgg sax ci euh, télé diine koy defee du bokk ak keneen. Euh, ni mhm. mhm. ngay da ngay di ko wuti nee naa la sànq que télé yi seen marketing kese la ñuy wut mhm. ñun taalibe parce que télévision ñu la invité ñu seetaan la doon boof moom ci la ñuy dox mhm. ndaxte bañ nañ ko ba ñëw ñoom mhm. ba wax démb ñoom seen yoon nekk si ñoom vue la ñuy lijjanti ak sponsor yi ciy dooleeku ak nit ñi leen di bàyyee xel ñoom loolu lañ ci jublu léegi nag ñun ñi nga ñun ñooy taalibe yi dañ defaraat suñu xol yi yeewu te bañ ñu jaxase ñu ndaxte ñoom mag ñi ka defar na seen bopp ba dem ñun ñoo war a booloo juboo defal suñu bopp ñu tamit déem leen a fekk di rus mhm. ndax bañ na ko ba waxtaankat bi ñëwoon koroog doon waxtaan ci Sidi Hadji Malick nee na mhm. képp kuy kuy xeex beneen mag beneen magul islam ci réew mi mhm. Sidi Hadji Malick nee na nga teg wirdam te loolu dafa leer mu nekk lu solo tey nag nañ rafetal xool mu nekk lu solo soxna Mame Fatou mu mel ni sax suñu mag ñooñ ñooñee nga xam ne ñoom la ñu bëgg a jaxase eh, ak mbokk gu law dox na seen diggante mu ngi yaatu ndax eh, sañ Touba ko ko tudd bu nekk eh, tudd Mame Malick si ndax gis nañ tey ji mbokk gi xam si ne dox na si seen diggante borom xam yu bari daal di koy nangu maanaam ni ñu koy defee ci boppam bu ñu ko xoolee bañuñu ko euh, Sénégal waa Sénégal et la CCI benn bopp la kenn du ko xar ñaar waaye tamit euh, ni ñu ko nar a defee fi mu toll nii dina yàq lu bari ndax euh, concurrence bi nga xam si ne ñoo ngi koy seetlu ci télé yi mën na ñaawal lu bëree bëri ndax da nga ciy gis koo xam si ne sax xolam dafay daal di surtout comme ça ni ñu ko defee gànna gis nañ fi bërki démb ay saaga yoo xam si ne ñoo ngi koy dagg ci loo xam si ne rafetul ci koo xam si ne dafay waxtaane sëñ Tuubaa mag ñi te koy tey jii kenn ku nekk mag noonu muy waxtaane sëñ Tuubaa mën na waxtaane yeneen i mag ndax lépp benn la tey jii tamit te nitu diine diine yi ci boppam ñoom boole woon nañ seen bopp ndax sëñ Tuubaa dañ ne yoonu murid du gis nga tey ji euh, Cheikh Sidil Maxtaar euh, maanaam radiyallahu anhuma na ko di dolli ay euh, kenn tarixa benn <laughs> tarixa ñu koy daal di ki te loolee gis nañ tey ji ni ko suñ borom daal di dimbale woon ba tey tamit sëñ Muntaxa mi gis nga ko na ko fi yàlla yàggal gis nañ tamit moom it ni mu fi toogee amul benn tarixa boo xam se ne mu ngi koy xàjjatle ba gis ngeen sax maanaam koorug daaw gis nañ ko defee te ndeysaan ndogu yi xam se ne doon nañ ko ko amal tey ji gis ngeen korona bi xay na yu ci bëri baari na ko waaye euh, am na benn jour boo xam ne jàpp na ko yóbbu ndogu ci kër euh, Sidi Alhaaji Malick si euh, mu nekk loo xam si ne ñëpp a ko rafetlu kon foofee fu ñu fay xajjale bu nekk amul waaye nag niñ koy nar defee nit ñi bu ñu bàyyiwaatut seen xel ci li nga xam si ne moo di waxtaan yi ni ñu koy defee ñu ba fas yéene ñaawal fekk na ñoom ñooy ñaawal yoon waaye yoon wi ñaawul ndax amul kenn koo xam si ne rek def nga ci lu ñaaw kii waxtaankat benn bu bokk ci benn tarixa bu tuddee beneen tarixa benn sëriñ ñu ne lu tax na wax waxam rek te bu ko ci boole te pourtant ñoom dañoo bindante ci seen biir kenn ku ne da ngaa sa morom mais boo waxee seede bi ñu ne lu tax ak ñoo baax ñun dañoo sikk nar a yàq seen liggéey nekk ay murit nekk ay taalibe ñun bu ñu nee Serigne Touba la ñu yaakaar maam Cheikh Ibrahima Fall ñu yaakaar dañoo war a xool ñoom yoon bañ jëloon ak yoon ba ñu awoon ak na xam ne noonu lañ doon dundee ak ay Serigne Alhaji Malick Sy ak maam Limamou Laye ak Baye Niass ñooñu noonu ñun tamit ñu topp yoon boobu mais tamit au lieu que ñuy xool yoon boo xamante ni mën nañ yoon bu safaanu la kon dafay mel ñu dañuy woote ak murit wala tijaan te nekkuñu ko voilà jërëjëf soxna Soucy la ku lii wax la ci des maagee ren de xanaa ngeen góor ñi ndax corona bi xanaa laaju leen sukkaru koor de jigéen ñi am na ñoo xamante ni de boo leen ko joxul ñu mer ndax suukaru koor li ma naan toj na dëkk bi. Mm-hmm. mais man pour man ren ren de xanaa pour man danañ jéggal ñëpp suukaru koor. ndax ne xamuñu <laughs> corona xamuñu Ebola. Mm. xamuñu ba ba léegi na ñu laaj suukaru koor. na ñu koy laaj. te boo ne leen. am na hmm? ñoo xamante ne ni yàq na dëkk bi. ni ma hmm. ko waxee sànq. mais hmm. anam bañ koy joxee anam bañ koy bañ koy bañ koy laajee. Mhm. des fois da ngay nekk si kër yow nga néew doole sa borom kër new doole yéen mhm. ñaar gi ngeen ngeen nekk ay wujju peccor go mhm. kenn ki la borom këram di am. moom da koy puukareewu defatu ko ngir yàlla da koy puukareewu ngir ignorer ki nga xamante ni moo amul. ba daf koy waral moom muy dem di bokk ay tontin di ko leb ndax de nee dañ naan des fois dañuy dem ci xew ñu ne bu njëkkee gërëmul goro gërëmul ku gërëm fi mu teg nga du noonu loolu la ñuy wax léegi tey ji yow boo joxewul suukaru koor ki koy joxe bu xew mu amee moom la ñuy gërëm bala ñi ñëw di seetaan la ñuy wax. Mhm. kii dafa bon sëyu ko fi ndax kii moo ko sëy moo moo tax ñu gërëm ko. ok mais suukaru koor lan lay def ci sëy c'est-à-dire lan lan lay représenté ci sëy. man de gisuma foo xamante ni bind ko fa. Mhm. baa ñu wax ko fa. Mhm. xanaa nag teraanga lañ si jublu woon. bu weeru ko jotee nga nga tere dañ dem ba dañ ko matérialiser yemul ci suukaru koor dañuy laaj donc lu ne la ñuy joxe. suukaru koor ok daa mujj léegi dañ def farata xanaa. des fois da ngay gis ku ne goro sa goro ne man damaa bëgg kilim nga ne ko bàyyi ba koor ga ma jox la ko suukaru koor. suukaru koor kilim waaw sedd soxna maam Fatou suukaru koor. suukaru koor El Hadj Ousseh comme ni ko màgget waxee lu ci màgget màggetu mu dégg nga ni mu ci waxee waaye lu mu ci wax bu nekk rek des na ndax maanaam niñ koy defee maa dañ ko defoon ngir rafetal waaye niñ koy defee fi mu toll nii dina ci bëri loo xam si ne dafay jur ñaawoo ndax euh, suukaru koor dañ ko defoon fi mu toll nii ngir euh, yaatal sab sëy maanaam ak euh, maanaam di fonk say goro ak ki njëkkee nga xam si ne boo amee joxe waaye léegi day yamalewuñ ko ci boo amee ak ko amut maanaam ki nga xam si ne sax jëkkëram joxu ko dara sax kooku lañ ci gën gën a mën a xor ñooñu wala naqara wala nangam ah, ndax xam nga sëy suñ borom da koo def muy nekk loo xam si ne a euh, euh, ba nga xam si ne tey ji amaan lu bari yaa ngi koy jànkoonteeg sa jëkkër ci biir néegu sëy euh, doo demoo ca gor a wax wala waxoo ko ci li nga xam si tedd ñu yaakaar ne yow loo am bu dee sa jëkkër jox na la ko ba tax na tamit bu sukkar score weeru koor jotee sukkar score boo ko andi bu nekk xas nañ la te amaana lu ci bëri loo xam si ne yaa ngi koy dund di ko tedd yaa ngi koy defal sa bopp ñoom xamuñu laajoo leen weeroo seen doom defoo dara waaye teew ñoom yow boo ko joxul yow xaawi nañ sa sutura weer la mm-hmm. mu nekk loo xam si ne ci Sénégal bu ñu ko fi dee xool xaw na métti ni ko Maguette euh, mën kii am kii amut jëkkëram maanaam na koo am ba jox ko ko euh, ki nga xam si ne jëkkëram amu ko ba kii day jaral sax ñoom ñu waaxu seen tànk ba ñëw ca kër ga euh, di ko àggee di ko xamal ne jeeg bu bon bi ndax sa morom mu fi nekk de def na nangam joxe na nangam ak i nangam waaye nag jeeg bu maanaam buy bu bon bu dee sëy du xool ca maanaam nekkal te fekk ne amaana yéene mën na fee nekk waaye ki amut mënoo ko wax li tax mu joxe ndax ki ne siiwam maanaam war a mën a dund euh, fexee xool maanaam la nga xam si ne mooy teraangaam mu di ko sagoo ci biiri moroom moom waxu xasalu la sa doom kookee defe naa ne nag boo ko santut bu nekk gërëmoo ko waroo koo fekk ci këram lu ne bu nekk nga yaakaar ne war nga koo mën a xas ndax doom ju nekk kat doomi jàmbur la sukkur koor de diine moom xanaa du force bu fekkee farata la wala sunna la man jàngu ko man te xam naa xëy na bu fekkee yaa ma yaa ma sut man xamam jàng na soriwul moom mais nag euh, gis nga suukaru ko élage dafa nekk tollu jamono boo xamante ni il fallait nag maanaam boroom xam-xam yi gën cee wax nit ñi nga xamante ne ay nit yàlla lañ gën cee wax gën cee yow yéen doomu aadama yi ndaxte comme que dañ ne Sénégal réewu jàmm la réewu teranga la na nag loolu moom mooy teranga di ko joxe nag ku ne xam ne Sénégal moom surtout jigéeni sénégalais yi ñoom tamit tàmm nañu xaritu jëkkër yi ñëpp da leen di sëyaaleel mais nag bu mu tax nit nit di def loo xamante ne lu mënul la surtout suukaru koor bi xëy na suukar lañ ko tuddee mais rarement ngay gis sax ku yëkkati suukar di ko ko joxe déedéet ay jeesne la ñuy yëkkate di ko joxe enveloppe xaalis ay peñe lu nekk lañ ciy joxe nga xam ne yow boo nee ba ba tàmmal ñi ngi ko tàmmal sax nag ñi ngi ko tàmmal sax foofu laa njëkk a duggee parce que ñi ngi ko tàmmal dañuy dem ba yow bu suñ borom gàllankooree bu la suñ borom gàllankooree sax ba indiwoo ko saw xasa ngay toog di la xaar imagine loolu nit ki nga xamante ne dafay def lu baax te yow te nag waaw waaw dafay dem ba ñoom buñ toogee gisuñu ko rek saw xas mën na la caax fekk wala leneen la leneen kon nag nit ñi maanaam war nañu lépp loo xam lu ñuy def la ñu def ko ngir yàlla te tax waaye tamit hélas nit ñi kenn ñoom mm-hmm. jigéen tamit ñi nga xam ñoom dañuy sëy mm-hmm. kenn du ñoom te ñoom lu ñu leen waxal ñoom wax nit ki bu fekkee da joxe suukaru koor mm-hmm. da joxe peñe da joxe ay gis ak lu mën doon élage te da koy def te yàlla dugg ko soxna Maguette mi Maguette dama laa soxla woon mu ñëw nga toog yow ak moom ay yàlla kese nga ne ko lii kër moom maa la loolu mën eh, eh, eh, ma sàmm du xam ma dem te ma sàmm mm, bu mm, a xamal nekk lu muy def lu nekk bu fekkee daf caa seet yàlla suñu borom ak def yàlla tax mën na cee am fayu suñu borom mais bu fekkee ne yow da yaa ngi koy statut di ko dugal fenn fu nekk nga dugal ko fa di wane maa ngi yóbbu sama suukaru ko loolu benn yow yaa am pour nit ñi sant la gërëm la waaye nag nit ñi na nga xam na nga xam ne ki la sant tey gërëm la tey bu subaa bu gëstoo gisu ko rek mu xas la voilà asu ba tey fi may dikkaate du ma ko dox ndax xam nga ne sukkar score ki koy def guddi di ko def ngir yàlla kooko du yóbbaale géwél boo xam si ne moo koy sàmm mbayaan te euh, loole xam nga ne moo seen am na ci biir sukkar score yi boo dee yóbbal sukkar score euh, ànd ak sa géwél di baatre di baatre waaw di baatre loolu soxla nañ ko mi nga man a a dem fële sax dëkki fu man réew <laughs> mais Maguette euh, gis nañ ne euh, fi mu toll nii est-ce ñun Sénégal li ñu tardeel bokk na ci daanaka ay futilités yu xam ne daal vraiment il est temps ñu changer comportement yi wax naa ko sànq ci bi ñuy tàmbali euh, corona bi am na lu bari loo xam ne war na ko mën a changer gis nañ ne am na lu bari loo xam ne yombal na ko jigéen jigéen ñi daan dem ci tontine yi dajaloo bi nangam ak nangam léegi amatul donc kon loolu dafay firndeel ne lu mënut a ñàkk ci doomu aadama amul donc nit ki loo yar sa bopp ak loo ñàkk a sa bopp rek moo fi nekk il aadama loo xamante nii li ma ko waxoon sànq rek li ñu bañoon bee passé yu yële jàll at yi passé yooyu tey nangu nañ ko ndax corona ñëw na imposé ñu ay loi am tontine yi ko bàyyi yow des fois jël sa xaalisu sa comme ku mel ne associé la dépense këram lay jël ñu ko joxee 3000 mu xaaj 2000 dem yóbbu ko sa tontine dugal ko ca natt ba yëpp dugal ko ca natt ba bàyyi seen waa kër ñuy souffrir ah. pour lan uh-huh. dañoo jigéen mhm. nee jigéen mooy àdduna jigéen mooy yaay mhm. jigéen mooy mooy doom bi mhm. sa kër bu jagee jigéen la kër bu baaxul tamit jigéen la ndaxte góor ñi góor mën naa bon am jabar ju baax mu soppi ko góor tamit mën naa baax am jabar ju bon mu soppi ko moo tax jigéen li ne mooy àddina moo tax ay suñu maam ñi suñu maam yi dañoo nax nañu nax xooluñu xoolatuñ ci moom génération léegi dañoo moderniser suñu bopp ñii ma gis génération 4G bi ma gis dañoo moderniser suñu bopp <laughs> ah démb xam nga laa gis ci réseaux sociaux yi. Mhm. nokkas buñ buñ defal ba pare. def ko ci def ko ci pot yi di ko jaay ne livraison à domicile. yéen dëbbatu leen di yaay lay waaw dëbbatu leen kon. man loolu démb bi ma ko gisee damaa choqué man ma ne dëbb nokkas rek mënatuñ ko def. vraiment taayel. fan la ñuy amee njaboot mhm. bu barkeel. fan lañ koy amee te pourtant bu njëkk. te loolu yaa koy yaa sa kër nit ki da doon defal lenn li borom këram. Mhm. ngir am ci ngërëmam. Mm. di ko ñaqal donc loolu tamit euh, soxna maam faatu vraiment Euh, il nag ñu ñu ñu jàngalaat sunu sunu sunu sunu ndaw ñi parce que jigéen ñi ñoom ñooy yor yor kër yi góor ñi bu ñu xëyee liggéey nañ donc il faut que nag ñu waxaat ak ñoom ci surtout ni ñuy sëy. bilaay El Hadj ni nga ko waxee sànq rek boo bëggee dégg-dëgg ñun jigéen ñi suñu nooflaay moo ëpp xëcc nañ nooflaay goo xam si ne maanaam dañ naan sax ñun suñu suñu mbir àggagut foofa waaye tamit euh, lépp ci nuñ ko teel a xëcc la suñu bopp comme ni ko Maguette waxee sànq waxuma la nokkas yi waaye feejarum soble dong sax fi jigéen ñi defatuñ ko ndax machine yi dalay jara nga déplacé déplacé wu dem ba marché ba euh, fay ñu daggteel la sa soble nga dikk euh, loolee tey ji nag bu amee fan la jigéen di man a euh, wute liggéey ba mën a am njaboot gu baax mm. tey ji tëla tëla tëlatoo tëlatoo sa waañ jigéen bu tëlatud waañam tëlatut waaw ñuy doom yi mel ne yu joué jigéen bu njëkk suñu maam yi bu njëkk comme ni ñu daan dégg ñu daan euh, seeni i nettali seeni jaar-jaar dañ daan dem ci tool yi euh, dem dàggane nañ xaw ma dikk root euh, tey ji amoon seen jur goo xam seen dañ ko daan toppatoo loolu lépp dañ ko daan dégg ñun lépp dalatuñu ndax xéewal gi am na fi am na am nañ courant am nañ tey ndox yu sedd yi dox waa jamono di dox waaye am na yoo xam si ne teew des na ci ñun tey ñu war di ko def di muy dugg ci waañ fexe togg ba mu baax nga jox sa borom eh, am na ñoo xamante nii seen borom kay dañ naan leen bëgg naa naan kafe waaye man café bi ñuy sax bëgg ma ko café bi ñu dëbb laa bëgg ay dëbbu dëbbu benn ko mënuma ko mënu ko mënuma ko li gën a li li sax mooy waxuma la dugg ci waañ toggal sa borom kër waaye sa borom kër dikk dong nga taaj ko dong defar taaj jigéen ñu bari fi ñu toll bàyyi nañ ko dañ naan la sa doom sa doom lay wax ne ko demal joxe ko willaay willaay willaay amul werante mm, amul werante mbindaan am na ñoo xam ne ñu baal ma mais mbindaan bi daanaka mooy def lépp mbindaan ma mooy taal cuuraay kalaasu kalaasu Cheikh Gueye gii mu leen min daan taalalee cuuraay ñaari yoon ah. lenn laa lay xamal moom lenn laa lay xamal moom gis nga man moom lenn laa contre moom jigéen nga yow nga ne yow da ngay sëy bëgg a jël sa sa sa mbindaan bëgg koo def loolu lépp sa lal moo koy lal sa cuuraay moo koy taal sa jëkkër bu ñëwee moo yëkkati kaas ndox may ko gis nga loolu mbindaan bu ci am fula bu nekk fexeel ba nangu jëkkëru jaamu kese. man gis-gis boobu kese laa ci am gis nga nag waaw parce que. nag bien sûr bon yi def lool dama leen cee ñee. ah damaa xam ne yow ñu takk la ci faratas yàlla indi la ci kër gi defal la ñeent ak trans comme ni ko mag ñi di waxee. nga ñëw ci kër gi defoo fa dara yow yaa ngi xëy amoo sa jotu jëkkër. doo ko toppatoo doo ko faale bàyyee ko bon ni mu koy defal lépp waaye bu amee. fu la bon li muy li muy lekk ak li muy génn la sa biti tegal la si nag loolu laa d'accord. dafa am na ci yoo xam ne soxna si moo ko war a defal borom këram kenn wër ko ko gérer def waaye li ma ci metti mooy euh, jigéen ñi dañ ko du def ndax nooflaay ndax euh, ni ma la waxee sànq nii da ngay xool la nga xam se ne yu ci bëri yoo xam se ne jigéen a ko war euh, mu sa borom kër defar sam ne laaleel ko loola lépp fi ndool jigéen la war da nga ciy gis ñoo xam se ne seen i jànk day fanaan yooyu moom lañ koy jox bu ko defee tey ji <laughs> nag loolu bu ko defee nag boo ko takkee nag nga ne ko danga maa bañ danga maa bañ ndax ki nga xam si ne dafa xam sama lépp maa ko andi ci kër gi yor ko yar ko bam toll fii mu xam sama lépp nga di ko takk fekk góor dañ ne góor fu mu mën a amee jàmm bu nekk gis nga góor gis nga góor bu la ci kenn nax fa mën a amee jàmm fu nekk rek moom lay ilaaj <laughs> tawa sow fa mën a amee <laughs> fa mën a ame jàmm bu nekk rek moom lay wuti Euh, tey ji bu ko jànq waree taalal billaay ndax bu ko jànq dee taalal cuuraay di ko joxu añ bu ñu waree dugg ci waaño mooy dugg ci ah, waañoo jox ko mu togg jox ko togg jox ko mu lekk ah kookee kat bu yàggee dinañ man comme ko yoratuma jabar jànq gi man mooy sama soxna naa ko def kon nag euh, maanaam li may gën a ñaax rek di gën a ñaax ñaax sama mbokki soxna yi ñu gën a góorgóorlu gën a xam ne tamit li fi nekkoon ba léegi jugu fi waaye nag euh, dafa nekk dafa doon loo xam ne anam bañ koy wutee ak anam ba nga xamante ne moom la ko suñu borom di may ndaxte adduniya mataawun wa xayru mataawun almaratu saaliha àdduna dañ ne marchandise la te marchandise bi gën ci marchandise mooy jigéen gu baax jigéen ñu baax kon nag jaadu na suñu mbokk soxna yi ñu gën a euh, takkuwaat gën a laxasaayiwaat gën a xam ne li fi nekkoon ba léegi juga fi waaye tamit gën a góorgóorluwaat gën a toppatoowaat boroom yi mm. te xam ne tamit ay sang lañ mm. te nag dañoo war a tarbiyawu war a lépp loo xamante ne lu ñu war la si ñoom rek suba ba ngoon jot ñu di koy def waaye nag bu fekkee dangaa am sa jànq bu mel ni Mame Fatou Kébé yi xam nga ne sa jëkkër boo ko jël mayloo ko ndox benn yoon ñaari yow wala wala nga loo ko añ bu ñettee dootoo ko defati ne xam naa dina ko nangu moom voilà mu nekk hmm, Maguette waaw voilà conseil bi ngay jox euh, mbokk soxna yi peut ci euh, fànn googu laata ñuy dem. ci comme comme ni ko Asou waxee rek dañuy daal déggalaat suñu borom kër yi ndaxte ñoom la ñu am. Mhm. ñoom tamit ñun la ñu am. Mhm. ndaxte yaakaar naa bu xiiroo ngaayoo amee ci ci kër gi rek du neex. Mhm. day soppeeku ndax ki nga xamante ne nii nit ñi bëri nañ. kër gi foofu mu tànn la yow indi la gi. man damaa yow ñu mu ay jigéen bëri nañ mu tàmm la la. bu soxla ci yow na ko fekk ci yow. mooy doon mbégteem mooy doon kontaan surtout ko ba da ngaa continuer foofu rek alxuraan dafa wax ne euh, hunna libaasun lakum wa antum libaasun na daf ne yéen comme par exemple yéen jigéen ñi ay sàngaay ngeen ci ñun waaye ñun tamit ñun góor ñi nga xam ne ñoom mënuñoo dem sans ñoom ñoom it mënuñoo dem sans ñun comme que nag yàlla suñu borom dafa dogal loolu ci ñun tamit il faut que tamit ñu booloo waaye tamit booloo booloo boo xamante ni anam boo xamante ni ku ñu gis rek mhm. naaw ñu ci rayukaay rek def ni comme suñu mag ñi nekk suñuy rayukaay ndaxte xoolal yow Ousseynou dogguma la mais mais bu njëkk Fatou bu jigéen ñi bu ñu daan bu ñu daan dem euh, ci ci biir kër seen borom kër di sëy dañuy waat ne dinaa jur lu mel nii. léegi mënatoo koo gis. kenn jigéen ñemetu koo waat. kenn sañatu koo waat boo ko waajal doo ko am de. li ma ci gën a metti nag mooy tey jii euh, da ngay bëgg sa euh, jëkkër lam warloog yow du ca wàcc ci yoon wa. ndax tey jii bu fekkoon ne yaa ngi ko waxoon ne ko bëgg naa nangam ji bu wàccee bala nga ko may ndox mu naan moom nga koy njëkk a laaj bu la bu bu la waxut dara yaa ngi ko attaqué yow wàcc saw yoon defoo la la nga ko war a defal ba pare tamit ne sa jëkkër moom it yoon wa du ko wàcc ndax lii yaa ma takk indi ma la lii war ab histoire te amaana yow yaa njëkk wàcc yoon ndax jigéen bu nangu ta teral borom këram toppatoowu ko mm. ah koo toppatoowu tamit lan lay mën a toppatoo ci yow nag lañ ko euh, bi nga xam ne moom lañ leen jagleel xam naa ñi ngi ci euh, cetul waxtaan bi euh, jombul soxna asu nga dikkal ñu ci koor gi ak korité gi li nga xam ne moo di muurum koor yee ya ci aju nga cofal ñu ci tuuti bu ko defee askan wi nga xam ne ñoo koy seetaan man cee barkeelu aussi mën cee jariñu laataa ñuy egg ci cetul waxtaan bi waaw El Hadji Ousseynou mu nekk loo xamante ne lu am solo mooy li nga xam ne moom la ñuy wooyee sakaatul fitre mu nekk loo xamante ne sunna mu mu akkarda bu ñu ko waxee ne mu koy digle moom dafa wax ne moom c'est obligatoire la dafa nekk loo xam ne lu munta a jamono ji jamonoy coronavirus la ñu toll kër yi sonn nañ poos yi vide nañ euh, waaye nag euh, borom kër bu nekk daf laa war waaye nag daf laa war tamit sa sa doom bu dee am nga doom génnul sa koor nga ne ñu aj wala am nga doom <laughs> mën mooy li koy mooy li koy mottale pour mu àgg rek ah, danañ ci a góorgóorlu bu baax mm-hmm. nag nag euh, naa ci dikk ñoom ñëpp nag bu fekkente ne kenn ku ci nekk mën na loo ko sa bopp borom kër bu fekkee moom mën na ko mënal ko yaayam ak doomam ak soxnaam ñëpp daf leen ko war a génne waale waaye nag euh, suñu borom nag nekk na koo xam ne bëri na yërmande ci jaam ñi kon nag euh, xam naa ku ci nekk rek loo ci mën de nga gën cee góorgóorlu góorgóorlu surtout El Hadj Ousseynou xam naa yow nga gën cee góorgóorlu dégg nga. incha allah rabi Maguette <laughs> bàyyi naa la yàlla yow moom. yow moom wax naa la li ma lay wax nee naa la nit ñi buñ naaneem ndox moom am nga problème léegi Maguette euh, comme ni ñu koy waxee boo suulee ñay ba mu des bopp ba nga mën koo eggali nit ki bu wooree ba nga xam ne desul lu may muurum koor euh, vraiment mu war cee mën a góorgóorlu aussi tamit. Uh-huh. nekk lu am solo comme ni ko sànq ni ko asulaat leeralee sànq rek nekk na lu am solo loo xam dañ koo war a def ci ci réew mi ndaxte nee naa def lu baax dafa am solo ndaxte boo defee lu baax yàlla dala koy fay da ngay def lu baax ba fay di ci jëlee lu bon loolu xamante ni daal borom kër yi yàlla dénk na leen ko mm-hmm. bu ngeen ko mënee génne comme ni ko kii waxee sànq mm-hmm. astu génne leen ko ngeen yéene ci waale uh, mm-hmm. la ko uh, uh, a nga xam ne lañ koy génnee balaa nga dem julli ji korité nga a soxla balaa génne ko voilà naam waaw boo ko l'islam moo programmé lépp. <laughs> noonu ndax ki nga xam si ne war nga koo jox sukkar score euh, bu fekkee ne sax laataa ngay julli ji ci boppam nga ko war a jox bu ko defee moom dina xam a programmer euh, xam a kii ndax euh, ni ko as waxee sànq wax nañ ceeb boo wax nañ pepp wax nañ xaalis waaye bu ne fii jamono toll tey ji boo ko mënee génnee ci sa xaalis tey ji mu dimbali nit ki ndax xam nañ ne ceeb wala pepp tey ji koo ko jox bu nekk rek du ko jëfandikoo ci jour korité da koy daal di dem jaayi te amaana na koy jaay bu fekkee ne yow xaalis jàpp ne na ci nga jox ko ko téye ko noonu moom la ci lislaam gën a fonk noonu ndaw la Euh, maanaam daal bu fekkente ne comme ni ko waxee woon sànq jamono yonent bi sallallahu alayhi ne ko ci ban anam lañ koy génnee daf leen a wax ne leen réew bu ci nekk la ëpp lu ñuy dundee loolu lañ koy génnee bu fekkee ne comme dañoo xool ne comme que nag jamono ceeb moo ëpp ak yu mel noonu waaye tamit bu fekkente ne yëkkati nga ceeb jox ko nit baax na bu fekkee tamit yëkkati nga xaalis jox ko tamit baax na mais bu fekkee tamit bu fekkee mën nga ne 2 kilos ceeb bi lii lay jar wala 3 kilos métier bi li lay jël nga yëkkati lu mel ne jox ko xam nga tamit nit ki maam Fatou mi xam nga ni mu bëggee aw aw yàpp xam nga ne boo ko naroon a jox ceeb tegal ko yàpp tegal ko ceeb xam nga ne yàpp bi lay jël bilaay ndax tali tali sax sax tintoni euh, dund gu nekk da ngay xool ci ci lépp ceeb li mën a jar munta jar kilo bi yàpp moo tax boo ko dee génnee la ngay génnee ca bopp yee tollo kii a boo ko yëkkatee jox ko ko ko mën na koo génnee ci um, kii yàpp moo tax waaw looloo tax maanaam ñu nattee ko foofu mu nekk lu am solo mhm, euh, mbokk yi euh, yi nga xam ne yéen a ngi seetaan 24 actu donc man message bi nga xam ne rek euh, dama koy lancé dama koy jëmale ci ñi nga xam ne rek moo di euh, mboolem jullit yëpp rawatina euh, mbas mi nga xam ne dugg si na comme jeexagul dañu nekk ci korité donc ñu bàyyi xel bu baax a baax li nga xam ne rek moo di jotaay yi ak li nga xam ne moo di les gestes barrières yi nga xam ne bu ñu ko respecté rek yàlla mën naa dogal mu jóge fi parce que fi mu toll nii moom yaakaar naa ne comme ni ma koy faral di waxee ci samay wax kenn mënul ne man xeex bi bokkuma ci parce que boo nee bokkuma ci donc dinañ la takkaloo masque par la force verre alcoolique mënul ñàkk te même bu dul dara nga protéger sa njaboot parce que ñun suñu mag ñi nga xam ne ñun moom la am te ku nekk xam na ne feebar bi aussi euh, gis nañu ni euh, mag ñi euh, daf leen sonal lool te daanaka du leen di muñal lu bari te mag ñooñu suñu mag ñooñu bëgg nañ ñu yàgg fi lool parce que dañuy wax ne Afrique benn mag bu dem rek daanaka bibliothèque bu lakk la donc kon nag loolu yaakaar naa ne ku ci nekk yow yaa ci war a am taxawaay bu am solo ñi nga jege comme ni ñu koy faral di waxee c'est très fagaru moo gën faju balaa ñu jeexal jotaay bi xanaa. ah d'accord voilà ko léegi jël si ko dégg nga amul benn problème ma bàyyi la nga tàggoog mbokk internet yi lay seetaan mel na ni 24 euh, actu moom vraiment ku sañoon di 24 actu fi mu toll nii nag nañ waxante dëgg asu <laughs> ah moom moo tee yëf de ah, ah? xam nga comme neex rek mën ngaa tëdd fa fa tëdd waaye gars yaa ngay tëdd ci seeni lal di seetaan 24 actu kenn mënu ci dara ah. ñoo xew ci jamono am déet ku war ñay ba wàcc ko loo war a ci mu weef affaire bi 24 actu la waxal.

ak ñoom ndaxte ñoom dañoo mën a tooñ moo tax di leen baaluwaat àq nag bu baax a baax di wax déwénati Sénégalais yépp maa ngi leen di wax déwénati di ñaan nag lépp loo xamante ne nii ñaan nañ ko ci koor gi yàlla nangul ñu ko te fulal ñu suñu koor comme ni ñu koy waxee dañu bañ a soppi nag ko yi ni ñu meloon ci koor gi ba tey dañ ko continuer di mel ndax yaakaar naa ne nekku ne weeru koor kese dañ war a baax tey ñaan nag mbas mi génn ci réew mi sonal nañu de ay corona yaa ñu lakka sonal nañu comme ni ko baax waxee kot billaay sonal nañu mhm. di ñaanal tamit nag euh, askan bi lépp loo xamante ni wax nañ ko fi loo xamante ni laal na kenn nag ñu ngi leen di jéggalu mhm. nga xam ne doomu aadama moo matul mhm. te ñuy bàyyi tamit euh, xiiro ngaayoo bi nga xamante ni am na ci réseaux sociaux loolu dama ciy insister ndax neexuma ndaxte ne li ma ko waxee sànq rek suñu mag yi

Euh, mën nañ ne mooy bomb moom waaye nag euh, di sina santaat yàlla bu baax di leen wax ne tamit déwénati euh, yaakaar naa ne moom El Hadj Ousseynou moom kontaan na ndax dafa ragaloon koor soxna Mame Fatou ca wet ga na di leen wax ne nag déwénati waaye tamit Thierno Faye nag Thierno koo am jom la moom ak ak yi daaw dafa ragal koor daaw dafa ragal koor dama ko bàyyi si biir noonu rek <laughs> Eh, eh, Baye Thierno Daouda mii moo ragal koy wax leen wax eh, ñu ngi leen di santaat bu ñu ngi bu baax di leen gërëm waaye tamit di leen jaajëfalaat bu baax di amaat contentement ci ñi nga xam ne ñoom la ñu bokkaloon euh, plateau bi ci spécial Korité fii ci 24 actu euh, El Hadj Ousseynou mm-hmm. Ndiaye euh, leen di jaajëfal bu baax di ne mi ngi ci biir 24 actu di leen ziarwaat bu baax comme ni ko Maguette waxee sànq Sénégal benn benn bopp la kenn mënu koo xar suñu kilifa yu tey dañoo fi tëdd Serigne Touba Xaadimu Rasul maam El Hadji Malick Sy maam Limaamu Laay kon nag tamit ñu a a a a a ni ñu ko waxee woon sànq lépp loo xam ne lu ñu fi wax la lu jub la dinañ ko sante yàlla waaye lu ci dëng tamit ngeen xam ne doomu aadama moo matul te xam ne tamit suñu jumte la ñu ngi leen koy jégalu bu wér lépp loo xamante wax nañ ko fi mu dëng rek ñi nga xam ne ngeen xam ne nekk na loo xamante ne jubluwuñ ko ci di leen jaajëfalaat bu baax waaye tamit di jaajëfal suñu caméraman yi nga xamante ni mën nañ ne bu image bi ba ngeen mën la ku ci mel ni Daouda ak Mame Cherno na gaaw ñëw yéen ñëpp laay waxal ni <laughs> gaaw jox ni suñu déwénal ci beneen yoon incha allah mbokk yi jërë ngeen jëf voilà Mame Fatou xam naa ne ñi nga xam ne mooy internautes yi nga xam ne ñoo ñuy seetaan ci biir réew meeg biti réew ñooñu day ñun amuñu seen fay vraiment ñi topp vraiment tout le temps di commenter et tout ça. Mm-hmm. jërëjëf El Hadj Ousseynou Ndiaye comme ni nga ko waxee sànq nag ndax benn nit bu la bëgg rek olof Ndiaye dina dafa jara daw ba dee te 24 actu ku ne xam ne nit ñi dañ koo bëgg ndax gis nañ ni ñuy toppee ci biir 24 actu di ñuy seetaan di ñuy bëggee kon nag tey a baax seen fay bu nekk waaye nag la ndax tamit ñun da ngeen ñuy jaral ñuy daal di sonn lépp loo lu mu mën a doon rek ci loo xam si ne tey ji leen ko indil da di neex dinañ leen ko indil ci biir bi ngeen di ko seetaan na yeneen yu nekk ca kanam waaw ak te tey ji aha nañu xaar xaar ndax xam ngeen ne koor gi euh, dañuy xaar ñoom euh, vingt-quatre xanaa xamu leen vingt-quatre at yi ñu ànd ak ñoom bu nekk rek loolu xaddiwu leen moo tax dañuy xaar xam nañ ne koor gi rek moo fi nekkoon euh, xam nga ne si la si lay lu ci mel ne classe asugeeg yooyu dañoo ragal koor du ñemee génn naaj waaye tey ji bu koor gi jeexee rek tey ngeen xam xaar leen ñu noonu ñu leen di wax ne tamit Sénégal comme nañ ko waxe woon sànq rek dañuy war a xam ne si ne ñun kenn ëppale wuñu ndax ba ñu yàlla joxe suñ mag ñu baax ñi lañ war a xam si ne suñu réewum Sénégal kenn ëppaleetuñu benn euh, te xam ne seen tamit suñu réew mi kenn mënu koo xaaj benn kenn mënu koo xar ñaar mm. te tamit ku jéem a yàq bu nekk rek da nga yàq waaye tamit doo doo ci gi na kon nag nañu jéem a defaru ñun ñëpp euh, te a euh, ñoom ñi nga xam ko waxee rek ñun benn lañ mooy sant tamit suñ cameraman yi ku ci mel ne Daouda ak Kerno di leen sant yéen ñi nga xam se tamit yéen ñuy topp ah, waaw naa ne maa ngi leen di xaar ñoom tamit gis nga ni ñu àndee woon ak ñoom ci biir eh, jotaayu koor gi ak xasida am solo maa ngi leen ciy siyaarewaat a baax te di leen leen jégalu El Hadj Ousseynou di jox dig daje dox rek ci beneen jotaay jërë ngeen jëf voilà jërëjëf eh, soxna Mame Fatou Kébé ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm sant soxna magget mi ñu bokkal jotaay beeg eh, soxna Souci la mbégte la ñu am ba di ànd ak yéen jotaay yu mel nii le rawatina nag spécial bi nga xam ne dañ koo jagleel lu jëm ci wàllu Euh, korite gi ñu ngi leen ci sant baax di leen gërëm di leen baaluwaat ak ak fu ngeen man di nekk rek ak ni ngeen ñuy toppee ñu ngi leen ciy gërëm bu baax a baax di leen gërëm incha allah rabi di leen jox daje comme ni ñu ko waxee woon li ci kanam mooy dàq incha allah rabi gërëm mboolem ñi nga xam ne euh, ñoo bokkoon ci jotaay bi euh, caméraman yi Serigne Daouda sant baax ci Thierno fay Serigne seex ci montage bi di leen jox daje incha allah beneen jotaay déwénati déwénati ñu fekkee déwén jërë ngeen jëf